conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali nay jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo kàddu yi njiitu réew France Emmanuel Macron yëkkati jëm ci wàllum caricature Seydina Mohamed loole nag daat nay metti lool ñi nga xam ne maanaam ñooy jullit yi yéenekaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal laan ñu dafa am benn professeur ca diwaanu France da doon caricaturer Seydina ñu daal di kay rey ba daal di kay daggate bi ñu demee nag ba di caricature loole nag moo mett lool ñi nga xam ne ñooy jullit yi réew mi quotidien nee na Emmanuel Macron day wax lu ko neex bu ñu ko waxee mu ne liberté d'expression waaye na ñëpp xam nañ ne liberté d'expression dafa am ab yamukaay yéenekaay gi nee na manifestation yi jamono ji ci àdduna bi mel na ne tulleeg màlle bëri na ci ay réew yoo xam ne ñoo ngi sàkk ñu daal di boycotté bépp produi boo xam ne France ñoo koy defar am na si ay réew yoo xam ne jot nañoo taal drapeau bu France fii ci Sénégal démb Karim Xurum Xaq taal na drapeau bu France ba ñu teg ko loxo mujj nañu ko bàyyi frappe France gaz ñoom Guy Marius Sagna ñoom tim daan nañuy génn ab communiqué di sàkku ci mboolem jullit yi ñu boycotté bépp produit boo xam ne français yi ñoo koy defar waaye nag ñoom am nañu mbetteel loola am gàcce ci noppi gi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall daat na koy noppi ci kàddu ñaaw yi nga xam ne Emmanuel Macron daat na ko yëkkati yéenekaay gi ñoom Guy Marius Sagna daat na ñuy wax ne terrorisme ak islam dafa wuute loola ndax ñi nga xam ne ñooy wër di rey nit ñi ba pare di mbubboo l'islam ñooñu duñu ay julita te loolee ñëpp dañu ko war a ràññetle ndax terrorisme di caagi ne da ngaa war a tooñ ñi nga xam ne ñooy dunu diine yéen a kaay gii de la témoin mu ñuy xamal lan ñu adduna bi ñi nga xam ne ay jullit lañ mer nañu lool ci kàddu yi nga xam ne Emmanuel Macron daan na ko yëkkati jullit yi tontu nañ tontu yu mat sëkk yu saf sàpp njiitu réew France yéen a kaay gii de Vox nee na mer mu rëy mi nga xam ne jullit yi mer nañu ko ba fenn fu nekk ñu fay manifester di xultu ak wane seen naqar loole nag tax na Emmanuel Macron jamono ji nag ma ngi daal di woote ak daal yéen kaay gii di réew mi quotidien ñu fekk fa njiitul Pastef di Ousmane Sonko daan nay wax wax ay dëggam njiitu réewum France nee na ko geer bi nga xam ne maanaam moom nga sumb ngir fas yéene xeex l'islam maanaam ñàkk nga ko te demagoo ci fenn ndax France yàgg nañoo xeex li nga xam ne mooy diine waaye nag ñu ci am ndam Emmanuel Macron Ousmane Sonko nee na dafay xeex diine bu ñu ko waxee mu ne terrorisme lay xeex libération yéene kaay ak laas ak Vox Populi xëy nañ wax ci loo xam ne senegal war nañu ko lijjanti maanaam muy ndaw ñi nga xam ne ñooy jël gaal gi di bëgg a dem bitim réew di dee ci géej gi journal bi nee na bërki de moo njaay am na ci ak gaal goo xam ne dafa explosé ba ñu bëri ñàkk ci seen bakkan bërki démb tamit am na geneen gaal goo xam ne dafa yeb ay ndaw ba feesa bëggoon a dem bitim réew waaye nag bi ñu leen gisee ci biir ndox mi ñoom dañu doon jéem a daw far mbëkkante ak beneen bato boo xam ne ma ngi woon ci biir ndox mi journal bi nee na gaal googee nag dafa daal di xar am na si lu toll si fan ak juróom-ñeent ñoo xam ne sowee nañ leen waaye nag ñi si des ba léegi nii ñoo ngi leen di wër kenn gisu leen ci waaxi ndakaaru yi laa Sénégal nee na bëri na ci kujje gi ñoo xam ne dañoo joxar bi état bu Sénégal ne moo yaacaaral ci ay ndawam ba ndaw ñi ñi di jël gaal gi di dem ci bitim réewa yéenekaay gi di Les Échos nee na bu ñu waxantee dëgg état bu Sénégal moom ci boppam moo tële ci lu jëm ci wàllum ndaw ñi nga xam ne ñooy jël gaal gi di dem ci bitim réew état bi moo ci mënul dara ndax ndaw ñu ñoo ngi jël gaal gi di dee te état bi lijjantiwu ko yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy ci Cellou Dalein Diallo mi nga xam ne dañu koo daal di sere moom Cellou daal nay wax ne dund gi nga xam ne moom la yoroon ca këram dund ko léegi tey mu jeex te am na lu toll ci téeméeri ndaw ñoo xam ne ñoom la nekkal foofu ñoo yor wàllum sécurité ma ñi nga xam ne nag ñooy waa CEDEAO waaye Union a ak waa Nations Unies ñoom pare nañ ngir daje ak Cellou Dalein waaye nag Cellou Dalein Diallo nee na mën na leen a recevoir waaye nag du nekk këram bureau lay doon te jamono ji a génn naam sax xaarul ci CEDEAO wala Union africaine wala Nations Unies dara ndax saa su nekk ñoom gis na ne Alpha Condé la ñuy faral enquête yéen a kaay Cellou Dalein Diallo nee na xaarul dala waa CEDEAO Dakar Times nee na lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat yi nar naa andi ay jafe-jafe yu rëy ci déndu Afrique a yi nga ne daal dinañ ko si sumb diggante askan wa fa yeewoo ak waa MFDC ñoo ngay fas yéene waxtaan ca mango fa ñi nga xam ne nag ñooy dox lu jëm ci wàllum tànk jàmm ca Casamance ñoo ngi waxtaan ci seen biir a xool diggante état ak waa MFDC yéen a kaay gi du l'Observateur nee na gàmmu gi ca madina Madinatu Salaam boo muytuulee jàppante dina fa amaat diggante ñi ànd ak Aïda Diallo ak ñi ànd ak Serigne Saliou ndax ñoom ñaari camp yépp Madinatu Salaam ca Mbuur la ñu ko bëgg a gàmmoo te nag bu ñu fa gàmmoo soo muytuulee jàppante dina fa am yéen douane jàpp na lu toll ci 1366 kilos yamba ca Kidira Matam journal bi nee na askan wa fa yeewoo mer nañu ba maara day taali waa Matam dañoo mer la ko waral bokk na ci la nga xam ne moom la leen Macky Sall diggoon amul lenn loo xam ne def na ko si yéen a kaay gi nee na Dakar capital bi ñoo ngi sonn ba maara day taali ci lu jëm ci wàllum ñàkk ndox yéen a kaay gi délibération nee na regroupement des tailleurs de Thiès mer nañu ba maara day taali niki démb amoon nañ ab toogum ñaxtu ca buntu mairie bu Thiès la waral nee na ñu taara si la maire bu Thiès leen commandé woon woon lu toll ci deux cent cinquante mille masques tailleur yi defar masques yi jox ko Talla Sylla Talla Sylla war leen a fay seenub xaalis ba léegi ni desel na lu toll ci soixante millions boobaak léegi toll na ci ñeenti weer moo tax tailleuru Thiès yi mer nañu ba maara taali yéen a kaay gi di stade xëy na ci Ligue des champions ak match bi nga xam ne ñoo ngi koy xaarandi tey jii diggante Marseille ak Manchester City yéen a kaay gi nee na suba match bu rëy dina am diggante Juve ak FC Barcelona yéen a kaay di sunu làmb nee na lu jëm ci beneen équipe bu yees ci CNG loole nag tax na Matar Ba dalal na